بسم الله حمدا لمن أرسل خير مرسل بخير أمة لخير الملل وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام وآله أبنان دوحة الشرف وصحبه وتابعين نعم السلف الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi جامو leen ak jàmm ci دولة الخلافة العباسية ñu toll ci jotaayu ñeent fukkeel bi ak ñaar ba léegi ñoo ngi ci juróom-ñaareelu xalifa bi di abdullahi al mamun ibnu haruna rashid al abbasi waxoon nañu leen nag mahmoun moom bi mu ñëwee dafa mel ni dafa bëgg a changer mbir yi ndax li mu def mooy drapeau bi ñu xamee woon dawlatul abbasiya nañ ko changer ñu jël drapeau bu wert seen couleur yëpp logo siyaar bi nga xam ne mooy siyaaru dawla bi yëpp nekk léegi yu wert loolu nag bi mu amee fële ca dañoo taxaw fippu daal di génn ci jaayante biñ jaayante ak Maamun daal di jaayante ak Ibrahim Ibrahima mi moo ko Haaruna Rasiid <coughs> ñoo bokk baay baay la ci ki nga xamante ne bi mooy Mahmoud léegi waa Bagdad jiital nañ ko ne ko ñun daal lii xamuñu ko kii dafa ñëw pour jaay ñu wala dafa ñëw pour coup d'état ñu wala lan moo xew léegi nag xeex bu rëy rëy daal di am Bagdad euh, ñu bëree bëri jaayante nañu ak Ibrahim pour mu nekk buur moom it mu jug sa kaw nag di oote ba nguuram di commencé yaatu loolu nag bi mu amee euh, Al Maamun dafa daal di jugee Xuraasaan daal di wutali Bagdad ànd ak armée bu rëy rëy rëy léegi bi ñu déggee ñu ne bi ngi ñëw Ibrahim ñoom dañoo dañoo dañoo tuxal euh, fekk avant loolu xeex bu rëy bakkan yu bëree bëri deret ju bëri tuuru na fa ndax diggante waa ñuul ak waa wert léegi ku sallu ñuul loolu day wane na yow ba léegi yaa ngi des ci dawlatul abbasiya ku sallu wert yor drapeau wert day wane ne léegi yow <coughs> euh, yaa ngi ànd ak nguur gu bees gi di ma amoon loolu nag am jur xeex bu rëy benn kër sax nee nañu xeex bu rëy dafa daal am ci loolu su ñu gis ñu ñuul ñu werte ñi dem attaqué leen ñu werte ñu ñuul ñi it fu ñu gis lu werte dem attaqué leen léegi Mahmoud bi mu ànd soldaar yi ñëw Bagdad fekk Ibrahima gañe nañ ko ci xeex boobu euh, ba dàq ko mu daw bi mu dawee nag làqatu kenn xamul at yu bëree bari kenn mënul teg bët Ibrahim parce que mbooloo mi mu àndal rey nañ ci ñu bëree bari ñu ci des ñu jàpp leen tëj leen ci kaso yi ma amoon daal di digal ne nañ leen tëj nañ leen téye foofu ba ma ñëw comme ñoom dañoo ñëw sama nguur gi sax yàggugul ñu bëgg see xapp suuf bëgg maa attaqué tëj leen foofu ba ma ñëw waaye Ibrahima moom comme daw na bàyyi leen bañ jàpp mbokk yi noonu la Mahmoud accès Bagdad daal di kàngam yi nga xam ne jàpp nañ leen ci xeex bi te ñëw ci gënoon mag nag daan soññu Ibrahim naan ko Mahmoud dafa ñëw pour jaay ñu dafa ñëw pour coup d'état naka lay fekkee drapo boo xam ne suñuy maam moom lañu yoroon te wax naa leen drapo bu ñuul bi fan la ko dawalutul abbasiya jëlee wala fan lañu wax ne fa lañ ko jëlee nee nañu drapeau boobu mooy <clears throat> bi Ali ibn Abi Talib yoroon mu jox ko Xuseynu balaa muy génn àdduna Xuseynu daal di dénkaane woon ne drapeau bii de bis dana ñëw nguur dina ñëw goo xam ne drapeau bii moom mooy nekk seen shiar ba Abu Muslim al-Khurasani am na benn bis mu fekk benn imam di xutba yore kaalu gu ñuul gi Abu Muslim na ko waaw yow kaala gi foo jëlee lu xew ni mu ko ah dama dégg ñu ne fatxu màkka yonentu alayhi salaam bi mu ñëw kaala gu ñuul la kaala woo woon agoo muslim daal di ne dagg leen bopp bi rey leen ko kaala gi buur yi kese ñoo ko war a kaala woo yow nga nekk imam ñëw fii di dëññeeral naan danga koy kaala woo mu daal di digle ñu dagg bopp bi mu dali fële yaram wa di ceddi ceddi moo tax dawlatul abbasiya ne kaala gu ñuul gi sunu ndono la fañ ko jëlee dafa sori lu tax nag Mahmoud moom ñëw bees bëgg ko soppi kon nag du ci dal loolu waral xeex bu metti ci seen diggante euh, bi nga xam ne Ibrahima daw na ma amoon bi ñëwee jàpp léegi nag dawlatul abbasin loolu lañ ko wax ne ko euh, maanaam kaala gi shiar bi sunu ndono la kon du mën a demee noonu bi ñëwee ñañ ci jàppoon ñu bari moo ray ñu bëree bari ñu ci des ñu tëj leen ci kaso bi mu ray ci ray yu ray yu gën ñaaw lañ leen ray léegi nag Ibrahim ndeke bi mu dawee làqatu moom mi ngi doon ñëw Baxdaad waaye nit <coughs> maa ngi jégalu waaye nit ñi xàmmewuñu ko ndeke Ibrahim yëree jigéen moom la dem jënd di ko sol ndeke bët bu set mi ngi ñëw Baxdaad mais kenn xàmmewu ko guddi nag lay ñëw sol yëree jigéen la jël sol ko comme ni jigéen di solo daal euh, def kanam gi noonu comme ni ko jigéen di def nga xam ne kii mënoo koo xàmmee léegi nag moom soldaar yi ñoo ngi koy wër fu ne fépp Kuufa euh, Madina Makka euh, Basra Yemen Xuraasaan gox yooyu yëpp mudun yëpp soldaar yi ñu ngi woon Ibrahim mënuñu koo gis ndekete moom ci gannaaw képp la làqatu ak at yu bari yooyu ànd ak loolu mi ngi ñëw Baxdaad kamata saaw euh, kamaayu saaw léegi euh, muy solu yëre yi jigéen di doxantu ci mbedd yi mais nee nañu dafa am bis li ñuy wax ku nar a ci loolu ñu koy waree mu am bis am ñaari jigéen maanaam ñu solu ñu jàpp ne ay jigéen lañu ñu jaar ci mbedd yi bi ñu jaaree foofu ci Baxdaad ci guddi gi ay ay xaaju guddi fa qaama alxaarisu alxaaris maanaam garde yi nekk foofu ne leen waaw ila ilaa ayna hazihi saa waaw yéen moom yéen jigéen ñi moom fu ngeen jëm ah guddi na fu ngeen jëm wa min ayna ak fu ngeen jóge waaw yéen jigéen ñi fekk Ibrahima la ànd ak keneen ñoom maanaam ñoom noonu lañ daan solo pour ne ah ñee ay jigéen lañu de ah yéen jigéen ngeen dem leen dem leen su ko defee bi bi ñu agsee nag ba ci xaaju guddi soldaar kar leen ne leen waaw yéen moom ilaa ayna fi eh, fi hadihi saa wa min ayna aydan yéen fu ngeen jëm ci waxtu wi ak fu ngeen jógee léegi nag summa araada an yumsikahunna fa aataahu ibrahimu xaataman kaana fi yadihi min yaquutin falamma nazara ilayhi alxaarisu ibrahim bi ko gardien yi jàppee dafa rocci jaaroom daal di leen koy jox jaaru bi nag nee nañu jaaru bu seer la woon mu rocc ko jox ko gardien yi pour ñu bàyyi ko maanaam ne am leen am leen gaaw dem bàyyi leen pour bañ ñu xàmmee ko mu jox leen jaaru bi nee nañu bi soldaar yi gardien yi bi ñu xoolee jaaru boobu wa qaala innama haza xaatamu rajulin kabiri sha'ni ñu ne haa jaaru bii jaaro jaaru bii de ki ko moom kilifa la war a doon yow est-ce que nga sa jaaru bi ah yow jigéen nga ba noppi nga yore jaaro bu seer bii te jaaru bii sax dafa mel dafa am lu ñuy jox maanaam biñ ñu sikki sàkka seen xel ñaaw léegi nag fa zahaba bihinna ila mutawali layli fa amarahunna an yusfirna an wujuhihinna a eh, ibrahimu fa kashafu an wajhihi fa ida huwa huwa bi ñu demee ñu dëj leen foofu ne waaw yéen jigéen ngeen léegi muree uñu leen seen kanam pour ñu xàmmee leen nee nañu bi ñu waxee loolu rek ibrahima daan hi musiba am na de mu daal di bañ ne moom kenn du uñi kanamam waaw parce que jigéen dañ ko war a orma ñu ne leen dëgg la jigéen lañ ko war a jox orma waaw heure bii léegi nag biñ bi ko gardien yi forcé uññi kanam gi ñu gis ko nag muy Ibrahim ñu ne ko ha fa arafahu wa dahaba bihi ila saaxibil xarasi fa sallamahu ilayhi fa arafu al axaru ila ba ila baabil fa asbaha fi daaril xalifati léegi bi loolu amee Ibrahima ñu ne ko nekk ne ko ha nekk nii yow at yii yëpp ñu lay wër ndeke yaa nekk nii ñu daal di koy jàpp nag yeew ko ci guddi gi euh, léegi euh, ma amoon ne ca bët set ga ñu ne nañ ko xamal ñëpp nañ yëgal ñëpp ne jàpp nañu Ibrahim <clears throat> ndax Ibrahim nag indi na fi xeex bu rëy indi na bal bala bu mag ci dawlo bi jaxase ne nit ñi bakkan yu bëree bari tuuru na fi nguur ak ma amoon demoon na ba nara lang Euh, ndax euh, bu xeex bi jéggi woon Bagdad musiba am loolu yëpp nag Ibrahima def na ko fi ba noppi ne mes jàpp nañu ay nit tëj leen jàpp ay nit ray leen te loolu yëpp Ibrahima moo ko sabab bi bi ñu ko jàppee ci bët set gi Mahmoud nag daal di koy jàpp <coughs> ñoo ngi jéggalu euh, bi ñu ko jàppee ñu wax ñëpp ne jàpp nañ ko nak euh mahmoun nena ñu dafa diso ak ahmad ibnu khalid kenn la won ci ministre yu mag yi ko gëna a mu diso ak mom na waw ah euh, yow la no xalaat ci ibrahim ne mom lañu wara a def mu ne ko ah ya amirul muminin kii bu mbugal nga wo ko mbugalé na nga xamné tooñoo kenn def nga li nga war a def te it ña jiitu woon defoon nañ ko mu ne waaye gis nga boo ko jéggalee amul kenn ku mas a def loolu soo ko jéggalee fama laka naziru amul kenn ku mas a def kon di nga am woy wu rafet ba faw mu ne ko baax na dégg naa xalaat léegi nag Ibrahima daal di ñëw daal di naa ah, inna zan bi a'zamu min uzrin mu ne bàkkaar bi ma def moo gën a rëy maanaam jéggulu mënu ko effacé bakkaar bi ma def moom mënuma koo jéggulu ak sayi atu yabqa sayi atan walaw tamma sahu bi alfi alfi xasana lu xas ñaaw moom ñaaw na ba pare ak loo ko rafetal léegi bi ñu ko jàppee indi ko ci kanam xalifa bi Abdoulaye Al mu daal di wax ne euh, bi mu ñëwee dafa ñëw njëkk nuyoo njëkk a nuyoo euh, Mahmoud fayu ko nuyoo ne ko euh, yow ak jëf yii yëpp nga def maanaam yow yaa nekk nii ak lii nga yóbbee dawla bi jëf yi nga def yëpp yow yaa nekk nii kay taxaw ci sama kanam tey mu ne ko Ibrahima daal ne ko yaa amiral muminin in tuaaqib fa bi xaqika wa in taafu fa bi fadlika euh, mu ne ko ah man de boo ma mbugalee soo ma rayee def nga li nga war a def bu fekkee jéggal nga ma nag sag mbaax ak sag ngeneel moo tax nga jéggal ma ma amoon ne ko man waxtaan naa ak euh, maanaam samay doomu baay mm, Mu'tasim ak ñeneen waaye niñ gis mooy naa la rey loolu lañ gis mu ne ko ah ñoom it ndax li war a nekk rek la ñu wax tooñuñu léegi nag euh, Maamun ne ko bal aafu ya ibrahim inna alqudarata tuzhibul xafiza wannadamu tawbatun wa baynahuma afwullahi wa jal wa huwa akbaru mimma tasaluhu mu ne ko Ibrahim jéggal naa la jarul rëccu li nga def yépp rëy na waaye nag jéggal naa la ndax njéggalu yàlla moo ëpp lii ñu soxla ñun ñépp bi Ibrahima déggee loolu daal di kabbaar fa kabbara Ibrahimu wa sajjada shukran lillahi azza wa jalla mu daal di kabbaar yuuxu sa kaw daal di rot ci suuf sujjoot sujjootu sant borom bi tabaraka wa taala Ibrahima mii nag xamoon ngeen ne woykat la woon maanaam nee nañu bokkoon na ci ñi dàqoon a woy euh, te baat bi neex ndax nee nañu sax bu nekkoon ci gannaaw feneen nga dégg ko maanaam da nga yaakaar ne jigéen gi gën a neex baat ci àdduna bi moo taxaw di woy dafa mënoon a woy lool loolu la ko ñëpp xamee léegi nag ginnaaw ba nga xam ne euh, Maamun jéggal na ko mu daal di digle it ne bépp alal joo xam ne jëloon nañ ko ci moom nañ ko fa delloo ndax ma Maamun bi ñu bi mu duggee daal sax dafa am juróom-ñetti fan samaaniyata ayyaam yoo xam ne dafa ne nañ taal lépp lu ñuul lu nekk baax daal nañ ko taal soldaar yi wër dëkk bi taal drapo yu ñuul yëpp lakk yépp maanaam amatul kenn ku ñeme sol lu ñuul yow bu yëre bu ñuul sax boo ko amoon ñemeetoo ko sol dàll yu ñuul rawatina maanaam lenn lu tax ci lu ñuul kenn ñemeetu ko sol soldaar yaa ngi ci amir bi tere na ko kenn ñemetu koo def moom am juróom-ñetti fan yoo xam ne lakk ak taal cepp la soldaar yi nekkee Bagdad lan la mooy siyaar yi nga xam ne yu ñuul la woon yu ñu bàyyi woon ci dawla bi bi nga xam ne nekk nañ foofu juróom-ñetti fan di lakk ak taal ba yu ñuul yëpp jeex kenn fa ñemetu koo sol ñëpp bàyyi ko léegi ñëpp commencé di sol lu vert maanaam dëkk bi mel ni nawet ñëpp mel ni nawet ñëpp di bàyyi nañ lu ñuul parce que léegi kii mooy buur bi te Maamun moom xam ngeen ko maanaam nguuram li ci xew ak di ci tuuru ci deret dafa bëri na bëri waaye boo xam ne nañu dem ci kanam da ngeen ci gis euh, yu yéeme yéem léegi bi nga xam ne euh, gis na ne nit ñaa ngi sol lu wersa topp nañ ko xam nga nu def bi ñëwee dafa toogaat daal di wax ne nañ dem jëndal ko yére benn abbaaya bu ñuul moo yu góor di sol noonu ñu dem gëstu ko ba am ko indil ko bi ñu ñëwee mu toog ak surafaaw yi ñu toog nee nañu mu jox tahir al xusayn ibnul xusayn ñu ne keneen la ko jox mu jox ko mbubb bu ñuul bi yëkkati ko ne ko am kado la solal léegi nag kooko tiit ne man de lii de mooy dee na kii lii mooy dee na maanaam kii kay li mu bëgg a wax leer na manam daf ne ma am bu mi sol ko rek bu ko defee rek ma dagg sa bopp bi man xana da am lu ma def lu ma yëgul fii mu daal sol mbubb mi nag daal taxaw jàq jàq jàq mu daal di jëlaat yeneen yëre yu ñuul joxe ci mbooloo mi ñu sol mu diglewaat ne nañ sol lu ñuul léegi nag ñu ne fan yooyu yëpp ñu gisaat Bagdad nit ñi di solaat du ñuul comme nam nekkee woon mais lan moo tax ma amoon def loolu politique bu rëy fii moom ma amoon def na fi maanaam xel mu rëy la def fii ndax nee na dafa bëggoon a xam nit ñi topp nañ ko wala topp ñu ko mu ne ah léegi nag xam naa ne nit ñi topp nañ ma su ne nañ sol lu vert ñu sol ko nañ sol lu ñu sol ko ah la mu doon wër gis naa ko léegi xam naa ne euh, nit ñi kon déggal nañ ma comme déggal nañ ma kon léegi Baxdaad nooy na nepp noonu la diglee nag ne léegi lu ñuul bu ko kenn solati dawla bi benn couleur moo fi am mooy couleur bu wert léegi Ibrahim maa ngi jéggalu Ibrahim Mahmoud jéggal na ko ak jëf ju réy yi mu def yépp daal di wax ne lépp luñ jëloon ci moom ci alal lañ ko ko delloo ba noppi yëkkatiwaat alal yu bari jox ko jox ko it kër gu rafet ci wetam mu dëkk foofu ndax jaadu na nag ndax mooy euh, baayam mook baayam ñoo bokk baay loolu jaadu na pour mu war a mën a nekk waaye li yéeme foofu mooy naka la Ibrahim mën a defee jëf ji ba noppi amir buur ñëw taxal ñëw taxaw jéggal ko moo tax Xaalid waxoon ko ne ko boo ko jéggalee de jëf nga loo xam ne kenn mësu koo jëf léegi na ñu ne gannaaw loolu comme Ibrahima dafa mënoon a woy Mamoun daf ko sànni ab bant maanaam ne ko woyal léegi damaa bëgg nga woyal ma mu ne ko hii man loolu bàyyi naa ko mu yàgg de man kay bi ma duggee ca la ma dugg gars jayma jaay ma ba ma dugg ci lu ma xamul hii léegi mënatuma woy bàyyi naa ko mu yàgg de nee nañu mu ne ko déet waaye woyal rek gannaaw loolu ñu ne ci la sadd euh, bayit yi bokk na ci lam wax zahabtu zahabtu min ad-dunya waqad zahabat minni lawa daru bi an'a wa walla biha anni لو الدهر به عنا وينك وولى بيع عني آه، بقنا جلهم وخ وإني وإن كنت المسيء بعينه بربي تعالى جده حسن الظن عدوت على نفسي فعاد بعفه علي فعاد العفو منا على مني daal di woy woy yu maanaam yu amir bi nag tagg euh, nga xam ne mooy Abdullahi al Mamun euh, mu ne fa in abki nafsi abki nafsan azizatan wa in atariqa atariqa ala danni bi mu paree euh, ne ko ahsant ahsant ya amiral muminin <laughs> maanaam fii daf ko kekkantoo ne ko ahsant yaa amiral mu'minin moom mooy buur bi de waaye moo wax ko loolu lu mu ko bëgg a wax maanaam mm, pour léegi dafa maanaam daf ko bëgg a tooñ nag pour dalal xelam nag pour pour mu war a pour dalal xelam ne ko yaa amiral mu'minin yow mi bëggoon a wut nguur pour ñu woowee la amiral mu'minin mujjul sotti nee na bi mu ko waxee loolu euh, di Ibrahim daal di sànni bant boobu mu yoroon di woy daal di taxaw ne amirul man ngay wax amirul mu'minin mu ne foofu nag mu tiit na waaw man mbaadu lii dañ ma ko defoon pour maanaam ray ma rek ci mu waxee loolu nag wax na ko euh, toogal toogal toogal toogal ci loolu nag maanaam ñu waxtaan ci la xamee ne dëgg dëgg nag jéggal na ko kon Ibrahim foofu la mujjee ak ki nga xam ne mooy almamun léegi nag waxoon naa leen mm, diggante euh, Tahir ibnul Xuseyn mi nga xam ne moo jiite woon soldaar yi nga xam ne moo fi jëlee al amin moom it dafa mujj maanaam ñëpp di ko tagg fu nekk nit ñi di ko tagg ngir jëf ju rëy ji mu def maanaam mën a xeex jële fi buur bi duma ko dàqe ko ba nopp bind leetar boole ko bopp bi yóbbul ko Maamun moom nag dafa am digganteem ak ki nga xam ne mooy xalifa bi ndax dafa am bis bis ñu ne Taahir daal di ñëw ci buur bi ci Euh, ma amoon daal di toog nuyoo ma daal xaw ko xaw koo kii daal xaw koo euh, jox benn gëdd bi xawu koo jox benn gëdd bi léegi fekk dafa am benn aajo bu doon sàkku foofu bu doon ñaan bi ñëwee buur bi defal ko loolu mais taxul mu jox ko daal xam nga olof danaan kanam du kasa waaye koo ci tëj boroom xam ko wax jooju dëgg gu wér la kanam du kasa waaye koo ci tëj borom xam ko nit ki am na nooy wax ak moom dina gis ne ubbiloo ko léegi fahir daal di yëg ne daal kii daal lim daan def ak man tey defu ko mu laaj ko ya amirul mu'minin lan moo xew fekk boobu nee na xool na Maamun gis bët yi taa maanaam Maamun bët yaa ngi taa nga xam ne bu gëmmee rek ronkañ ji tuuru mu laaj ko ne ko ah waaw lan moo xew wax ko dara beneen riwaaya nee nañ bi mu ko laajee na ko waaw lan xew dafa na ko li xew de gën naa rëy pour ma nettale ko moom kay bàyyil noonu rek waaye nag Tahir bi mu génnee dafa jël mbindaan bi nga xam ne moo gën a jege Haaruna Rasid mu woo ko ba mu ñëw nee nañu mu jox ko xaalis bu bëree baree bari ne ko nag maanaam euh, amirul muminin loolu muy jooy laa bëgg a xam lu mu doon fexeel ba ma xam ko xaalis bi ma la jox bu doyul wax ma te gis naa ne daal ubbi lu ma kanamam am na daal lu xew lu ma yëgul ak man jëf yi ma def yëpp maanaam tey nguur gi bu taxaw bu tegoo ci loxoom maanaam bu dogalu dogalu yàlla la mu jaarale ko ci man gis nga ni ma sonnee ci nguur gi maanaam maa xeex ba jël drapeau bi teg ko ci mu mel ni or bu rafet ma teg ko ci palaat bi mu gën bëgg ñëw tegal ko ko ci kanamam kon bu luy xewee daf may jaaxal daal di jox mbindaan bi xaalis bu bari ne ko fexel ba xamal man li xew waaye nag bu ma ci feeñ bu ma ci feeñ ne ko xaalis bi bu doyul nga wax ma dolli la léegi kooku ci lay defee ay gëstoom def ay gëstoom ba xam léegi Maamun wax na ko dëgg-dëgg nag li xew lu mu doon mbokk yi fii la ñu teg sunu loxo incha allah bu ñu fi yàlla indiwaatee su ko defee ñu nettali xisab diggante moom ak buur bi fan lañ mujj